Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, voici quelques brèves présentations. Cheikh Ousmane. Reparlons du dossier d'Ousmane Sonko. Les députés se réunissent ce mercredi en séance plénière pour examiner le dossier d'Ousmane Sonko qui continue de défrayer la chronique que nous y reviendrons euh, très prochainement dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant du Covid. L'université Chantal Diop euh, tire la sonnette d'alarme. Toutes les facultés se sont réunies avant-hier pour euh, permettre aux étudiants de prendre des mesures de barrière et, surtout d'éviter des rassemblements au niveau des campus. Reparlons toujours de la situation en Casamance. Les ressortissants casamassés à Dakar lance un appel de paix et d'unité afin que les Casamançais puissent se retrouver pour tenter de trouver une solution idoine et pacifique sur la crise euh, casamançaise. Parlons toujours sur l'actualité nationale, mesdames et messieurs, vous savez très bien que la situation est très tendue à Saint-Louis. 17 pêcheurs ont péri dans les zones euh, mauritaniennes. La situation se dégrade. Les pêcheurs de Ketnar lancent un appel au ministre la Pêche pour tenter de trouver des solutions face à cette euh, situation. Et sans transition à l'étranger, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Guillon, est à N'Djamena pour prendre part à ce sommet du G5 au Sahel. Dans une poignée de secondes, mesdames et messieurs, c'est tout de suite la version parce que nu suñu gaal ñu ngi leen di gërëm leen xam ngeen ni ëllëg alarba euh, si la ñuy waxtaanee lépp loo xam yéen na si mbirum Ousmane Sonko Ousmane Sonko dañ ko tumal doon sàkku benn xale bu jigéen bu ñuy wax Adji Sarr nañ si ñëw suñu leen euh, xibaar. dañuy dem fële ci Casamance xam ngeen ni sagale bi xëy na diggante way fuppi ak foofu ca biir euh, fële ca Casamance xam nañ ñooy doomu Casamance yi nekk ci Ndakaaru ak li ko wër ñu ngi woo ñëpp ñu mën a ànd ak daal yar ak teggin ñu mën a saafara mbirum Casamance ñu mu gën a gaawee. dañuy dem fële ci mbirum. Euh, fële ci université euh, euh, Cheikh Anta Diop daal di kaw yi ñu ngi woo faculté yëpp ñu mën jël seen mottuwaay jëmale ko ay mesures de barrière xam ngeen ni jamono ji euh, feebar bi nga xam mooy coronavirus mi ngi lan si réew mi nga xam ne ñooy suñu mbokku étudiants yi war nañ jël seen mottuwaay ngir moytu feebar boobu. dañuy dem ba bitim réew xam ngeen ni ministre français des affaires étrangères di Jean-Yves Le Drian ex na fële ci Ndiamena lépp ñu doon waxtaanee jëmale ko kaaraange ñu xam ni am na fële ci yenn Afrique mel ni Burkina Faso Niger Mali ne nag ñu woo africains yooyu dëkk yoo xam ne dañ nekk jafe-jafe ñu mën a toog waxtaan génne euh, pays say yooyu si ay jafe-jafe mbokk naan ay tënku xibaar si Salam présentation Cheikhou Sakho jàmm ak jàmm la ñu gërëm leen sant